maa ngi jaale ji nga xam ne am nañ ay mbokk yi nga xam ne faatu nañ si feebar bi di fàttali ne kaayaa ngi yokku loolu moom dëgg la waaye su fekkoon mesure yi jëloon début bi jëluñ ko woon dina doon gën a yokk que nii lii nag day wone rek ne feebar bi moytu mu law si dëkk bi moo gën euh, di mbiru faj bi am na sa ñoo xam ne ñu ngi théoriser ñu bàyyi ko mu continuer moo gën waaye feebar boo xam ne mun na la dal ñaari yoon ñetti yoon fukki yoon su continuer kooku moom day indi musiba am na yeneen yu ma si mënoon wax waaye il faut ñu raccourcir durée d'intervention xëy na dina am yeneen jotaay yu ñu si mën a wax euh, faj bi nag ñun hydroxychloroquine bi ñu waxoon ñu utiliser ko utiliser nañ ko am na fu ñu ko utiliser boole ko azithromycine gis nañ ne résultat yi so amee a chloroquine moo gën baax chloroquine ak azithromycine a baax si lu mat euh, ñetti 300 mooy ñetti junne def na ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom fukk effets secondaires et loolu dafa am importance parce que bu mel ni ko di indi lool loolu kenn 12 personnes ñoo si am lu douze personnes yi amul kenn ko si am lor bu rëy ñoom ñëpp bi ñu arrêté seen traitement wala ñu continuer ko jeex lépp dëñ si donc garab yi lu ñu mun a wax lu baax la te it supporté nañ ko waaye dafa laaj surveillance automédication waruñ ko jël gis nañ sax ñi nga xam ne teel nañ faju seen durée traitement mooy gën a gàtt ñu en général huit jours mooy durée médiane de traitement euh, su loolu passé faj bi nu mun ta dina am ñoo xam ne duñ si sauvé ñooñu nag euh, am na ñoo xam ne du hôpital am na ñu faatu hôpital si réanimation waaye réanimation am na ñu fa wér it génn fa di di vraiment remercier se réanimation service professeur Kane